nu ko xel ndax nag amuñu salle de cours waaye itam bibliothèque infirmerie euh, l'école ba de ko daal di manquele ci noone it nee ñu bëri nañu lool ci biir salle de classe yi nga xam ne as néew moo jot a nekkandi ah, ca boobule daara di euh, lycée Parcelles nii ah, bokk na ci it nag euh, façon ba nuy jàngee ak itam njàngin wi ah, baaxul jégiwul jéggi na dayoo El Hadji Moussa Traoré El Hadji Moussa Touré mooy kaddu ndongo yi nekk foofee ca lycée bu parcelle Parcelles Assainies ñu teewlu ko. 2015 travaux yi commencé na demul dikkul gis ngeen bâtiment yi ni mu mel nii cinq ans nii la mel bâtiment bi ngeen di jàkkaarlool lu nekk mën na am ci biir. ay sàkket wër ko comme ça xar yeeg nag yeeg béy yi fee la ñuy jaar di dugg ci lycée bi. 115 élèves ci benn classe ñu nekk ci temps corona distanciation de sécurité pour protéger suñu élèves yi. second euh, semestre composition du fi taxaw. centre centre d'examen yi baccalauréat bi mi ngi ñëw daañ ko perturbé BFEM mi ngi ñëw daañ ko perturbé notes yi ko bloqué mhm. ñu ngi taxaw ci ginnaaw suñu élèves yi ànd ak ñoom xeex di kàddu ko élèves yi ndong ci lycée bu Parcelles Assainies beneen ko jafe-jafe muy ñi nga xam ni it ñoom ñoo nekk ca jàmm gën si Kambaaw fa ñu duppee fora ba foofu nag sàmm yu ndaw yi nee ñu dañoo amuk mettit ndax nee ñu benn gàtt gu nekk rawatina mu di ak nag boobu ne dinañ leen ca laaj ñaar téeméer te loolu dafa bëri ba jéggi dayo nee ñu nag bu yi wéyee doo ñu indeeti nag fii ci Ndakaaru te it boo moytul yow xunu nag Wo Adama Ndiaye mooy secrétaire général éleveur yi ndaw yi ci jàmm gën si kàmbaaw ñu teewlu ko ak Younousa Baldé nag nag amul fii marché yi wane na ko kilo yàpp mi ngi mille cinq cent mosu fa yegg kilo yàpp mosul yegg 3000 seeraat manque bi moo ko war ñii ñoo grève parce que ñi ñu yore si nuy nag ñun ñoo grève parce que tax yu ñu teg duñ ko nangu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba nag yi dañoo seer ci àll bi bu ñu bëggee teg tax day gën a seer kon nag loolu ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba nañu président de la république dimbali lu mu ci guubee dañ koy gar ñun pare nañ pour lépp tant que taxe bi dañu nag yi duñ ñëw xaru tabaski sax du ñëw ma ne la fas sax du ñëw ñii ñooy sàmm yi ñii ñooy les vrais éleveurs vrais acteur yi ñu ngi nii maay la preuve yow xool nga daral bi gis nga li fi ne dañuy dem ca Paris foofee président de la République Macky Sall ma fa amaluk ngan ci ak sommet goo xam ne dañu ko daal amal diggante France la ak Afrique ngir xool financement yi nu ñu koy doxalee foofee na président Macky Sall daal dinay ñaawlu ñi nga xam nit euh, dëkk yu ne ndóoluñu am nañu yombute ci wàllu vaccin yi waxtu woowu dëkk yu bëri ci dindug Afrique am jafe-jafe jot ci vaccin yi muy saako it africain yi def seen kémtu laay kàttan ba mën a amal vaccin yi bu sukkandikoo ba nekk foofee ca France président tàng mu amal ko foofee ca nganam gi Papa Cheikh Fall lay wuyoo ñu ko. ba mu dooree rek Macky Sall li mu njëkk a yëkkati si conférence de presse bi amal Emmanuel Macron mooy ñaawlu si biir xeet gi am ci li nga xam ne mooy ñakk yi am si àdduna bi jëm xeex jàngoro yi Covid si diggante réew yi am doole yi ak réew yi ñàkk doole yi. nous avons une responsabilité commune et que vacciner ses propres populations pour les pays. industrialisés ne leur garantit absolument pas la sécurité sanitaire. Macky Sall yëmul foofu mu daal ci dolli ne nañu fexe ba amal ay usines yoo xam ne dañuy defar ay vaccin ni ñu koy defaree ci yeneen réew yi fexe nañu defaree ko noonu ci Afrique ba Afrique mën a. ñàkk boppam tout le monde est mobilisé pour que l'Afrique puisse produire ces vaccins ça veut dire qu'il faut lever les contraintes qui s'opposent à la production des vaccins sur le continent. Macky Sall nag dana ñibbisi tey ak délégation si Sénégal waaye ci leeral fii ci Paris amu fi benn rencontre politique ci diggantam ak militant APR yi nekk fii ci France. moom président bokk na euh, di li nga xam ni itam moom moo di réew yi ngir mu doon amee soxlawu jàmp ju daal di jël milliards jagleel ko Afrique euh, daal di waroo ak fanweer ak ñett yi nga xam ne moom la ñu daal di euh, nag bëgg jox réew moomee amee sa baabu daal di ne lu war la ndax dëkk yooyee ñi bokk ci FMI mën nañu am ci koppar googu yi nga xam ne ay fonds de réserve lañ ko daal di dippee may sa baabu ñu teewlu ay kàddu bor yi dafa bari réew Afrique yi kenn mëndu ci leb FMI ñun ñoo fa bokk ak yeneen réew yëpp léegi nag kenn ku ci nekk dafa am loo fa am ci alal ku nekk dañ leen nattal loolu nga xam ne ñun de tirage spéciaux réserve la boo xam ne nii réew Afrique yi am nañ ci droit buñ nekkee ci ay coono lañ koy sañ a laal Macron xam na ne 33 milliards tuuti na mu ne ñaar fukki réew yooyu nga xam ñoo ko dool ci àddina kenn ku nekk droit ba nga fa am muy alal bu daal lay ñaan soo ko Sall wax muy cent milliards de dollars xaalis boobu takku la fekkente ne daal Maysa Ba bu xam li da koppar gi lu war la ndax itam ci koppar gi réew yi mën nañ fa jaaree ngir joyantewaat seenu koom bu jëkk jëlee misaal ci Sénégal lu toll ci euh, juróom-ñaari euh, téeméeri milliards juróom-ñaari junni milliards la ñu daal di soxla ngir daal di euh, yolamalaat wala it joyantewaat sunu koom nga xam ni Covid nërmeel na ko ci wàllu Covid googee kàddu ca président yëkkati it moom Maysa Ba bu rafetlu na ko ñu teewlu ko ba tey ci téléphone nu naan gouvernement bu nekk préparé nga li ñuy wax plan de relance maanaam yow yaay xool say secteur Sénégal nee na agriculture ci la bokk nee santé bi tamit dana ko defaraat hôtellerie yu mel noonu tourisme bi dañ koy joyantiwaat defar na daal benn plan boo xam ne nii defe naa ne su ma juumul mi ngi woon ci sept mille milliards yu mel noonu soo ko boole woon ak PSE bi programme ba mu yore woon daanaka dañuy dem ci quinze mille milliards donc Sénégal définir na ko pare xam naa ne Côte d'Ivoire def na bosam keneen def na bosam comme que ñun pour cent peut être ñëw si vaccin wala vingt cinq pour cent léegi nag comme que ñun mënuñ koy jënd Chine nag mayee na am na aussi foo xam ne ni bokk nañ fa ñu koy wax euh, initiative COVAX ñooñu tamit joxe nañ ba tey dafa doyut ñu daal di dem ca Medina Salaam dëkk dëkkaat la bu nekk ca Bunkiling foofee nag askan wa dañoo daal di mere ba futu te merew ñu kenn dul seenug meer jafe-jafe yi metti la ñuy daal di dund doxub ñaxtu la ñu amal lu toll ci juróom fukk juróom-ñett ci ay dëkk dëkkaat ñoo amal lu ni mel nañu nag benn poste de santé la ñu am benn collège boo xam ne moom mooy jàngale xale yu diggu doom yi waaye tam benn forage boo xam ne dafa daal di panne ndox bu sell nekk doom bu góor ca gox ba suñu naataango foofee Abdourahmane Diallo lañ ci àndal askan commune bu Tànkon nekk ci département bu Bunkiling amal nañu doxum ñaxtu pour ñaawlu jafe-jafe yi ñuy population bi yéen gis ci ay teen la ñuy wëgg teen yoo xamante ni lay doon boo jëlee ci wàllu njur population bi sonn nañ trop jigéen ñi ngeen gis fii néew na jigéen ju fi am doom joo xamante ni amoo doom ci kaw charette. te li ko waral mooy ñàkk yoon bu baax li ko ñaaral mooy waral mooy ñàkk jumtukaay boo xamante ni dina leen permettre mu jege leen 58 villages ci commune de Tànkon benn CM moo fi nekk mu ngi Tànkon boo amee un 36e amuloo fa ni mooy tuteur sa njàngu day yàqu kayitu juddu sax daa sori certificat de résidence laay wax boo soxlaa certificat de résidence ay dizaine de kilomètres ngay def dem ba yegg fi nga xamante nii moom mooy ca mairie ba mën nga faa yendu suba ba ngoon jot doo gis kenn ku la defal certificat de résidence El Hadj Mbaye nekk leader politique yoroon seeni kaddu ngaññi ne doxalin seenu jaraf commune encore une fois du kenn mooy ki fi nekk muy le maire Samba Sayane Diallo ci beneen fànn tam marcheurs yi talal nañu loxo njiitu réew mi pour mu jàppale leen ñu jot ci intrants agricoles yi yu ñu dul gis fenn. Ibrahima Diallo lañ ci doon àndal ñu daal di wax ci leneen ci wàllu politique diggante Khalifa Babacar Sall ak Barthélémy Diaz ndax xajam da ca mën a da ca am lu ci mën di am daal analyste politique bi di Babacar Dione daal dina ci jéem indi ak gindi ci xalaatam moom mi nga xam ni moom moo di Barthélémy Diaz dëgg-dëgg ci wàllu ku yar waroon naa bi di euh, wala coalition bi di taxaw. ndakaaru ñu xool bu baax a baax naka la ñuy tabbee kenn ku wóoroo ak Soham Wardini nga xam ni boobaak léegi mi ngi lëkkaloo ak ñoom ci coalition bi jàpp na ni it moom analyste politique bi Barthélémy Diaz li ñu ko bàyyi muy doxalee nu ko neexee ci parti bi dafa daal di bari ba mujjantal ga sax dafa mel ni boobule coalition amatul ak discipline suñu teewlu ay kàddoom moom mi Babacar Ndiond ci euh, micro Abdoul Aziz Sow Daba lii gisoon nañ ko muy ñëw Khalifa Sall aujourd'hui ndaw yi nanguloon na leen loo xam ne dem nañu ba nga xam ne léegi xaaruñu Khalifa Sall ci ay électron libre lañu Khalifa Sall leadership am ci gérer coalition taxaw Dakar euh, nit ñaa ngi koy xaar ci ban posture lay jël parce que Barthélemy nag fi mu nekk nii wane na ni dépendretul si décision wu xalifa Sall pour def lu ko neex te loolu yàgg na moo tax nag ma ni la l'avenir de taxawu Dakar u taxawu Sénégal qui en jeu ci fii ñu toll nii léegi nag soo am bi taxawu Dakar si mairie Dakar li nga xam ni discipline de parti laajoon na ko mooy Barthélemy tënku si loolu en attendant que position officielle génn. délégué quartier nekk ca Kër masaar mere nan bu ba futt ki nga xam ne it euh, moom moo di maire bu ville bu Pikine ndax ne ñun ngi toll ci lim ci téeméer fanweer ak ñett ci ay délégué yoo xam ni it ne ñu ay euh, weer ngi ni jotuñu lu duppee seenu ay ndàmpaay ci noonu it lu jëm ci it départementalisation bu Kër masaar àddu nañ ci ak itam ñeent ci ay commune yoo xam ne war nañ ko jébbal Kër Massar Idrissa Diémé Tidiane Diop lañ ci àndal projet de découpage bu ñu bëgg a def région bu Dakar dina tax ba ñu indi ay délégation spéciale ci commune yu bëri waaye laataa loolu ca Kër Massar délégué de quartier yi di sàkku rek mairie ville de Pikine mu jox leen seen i indemnité dañuy bañ ñu ne comme léegi Kër Massar département la dossier yooyu nga xam ne nekkoon na foofu ñu di ko topp ñu annulé ko wala ñu téyaa ko bu ñu duñ si jot parce que li ñu li ñu ñaan daal mooy bala ñuy dem délégation spéciale nañ ñu régleel document yooyu te li ñu bëgg nag mooy ñu boole délégué yépp fay leen parce que loolu moo jaadu. bu dee délégué yi di rafetlu départementalisation bu ñu bëgg a def waaye ca convergence pour la renaissance et le développement ñoom ne sax am beneen gisin. bu ñu bëggee jël Kër Masar xaaj ko ñaar kese def benn Kër Masar ak ak ay Numadi donc day mel ni kon en fait dañoo respecté wul Kër Masar waaye parce que Kër Masar ci doole maanaam ci doomu adama méngoo na tey ak li nga xam ne bëgg nañ ko Kër Masar tey am na espace bu doy ñu bu ñu ko bëggee def ñaari commune képp c'est pour des waa convergence pour la renaissance et le développement ñoom fësal seen candidature li jëmee ci mairie bu Kër Massar waaye délégué des quartiers yi ñoom lay sax gis ni départementalisation bi war na nekk occasion sax ngir ñu gën a defaraat rëdd yi dox ci diggante communes yi ngir jàppale nag ndaw yi nga xam ni ay xale tut tànk la ñu daal di amee ak laago ngir ñu mën a egg ci l'école yi ni ki yeneen tut tànk yi am nag projet boo xam ni teg nañu ko mu soxal lu toll ci juróom benn fukk ak juróom ñeent ci l'école ñaar fukk ak ñett ya nañuy digg doom la ñeent fukk ak juróom benn ya di l'école élémentaire ci noonu it kon na ñetti million d'euros dugal nañ ko ci koppar ngir boobu le projet mën a antu ñu teewlu Tidiane Diop moom Pauline Thiam laay ngir gën a jàppale laago yi projet faire l'école ciblé na ay région yu bëri sunu euh, xale yu am ay laago mu façon laago bu nekk nag ñu jàppale leen ñu mën a dem école parce que tey nit ñi dañuy yaakaar xale bu am laago mënul jàng alors que mën na mën na ko suñu suñu suñ ko joxe ay jumtuwaay pour mu mën ko def euh, dina dina mën a am ci ay critères lañu ko teg ngir tànn école yooyu le euh, juróom benn fukk ak juróom-ñeent ak ñaar fukki ak ñett collège ak euh, ñeent fukk ak juróom-benn euh, école élémentaire ci région Fatick Kolda Kaolack euh, Sédhiou Kaffrine ak Dakar. ngir réaliser projet boobule. partenaires yi dugal nañu seen loxo ci mbir mi. kii ku c'est trois millions d'euros waaw soo soo ko xoolee xayma presque trois milliards la projet bi nag dina def trois ans financé. par la coopération c'est un don donc euh, de de la coopération italienne. fexe xale way laago yi mun a dem école te am éducation bu qualité lii rek moo nekk seen yiite. campagne boo xam ne dabu ci euh, wopp ju bon ñu duppee polio te it muy laagaloo xale yi amal nañ ko ci diwaanu ko Jurbel ñu téeméer boo jël ca ñu ciblé woon juróom-ñett fukk jot nañu amal ñàkk bi la ca des bu ñu euh, sukkandikoo ci docteur Ousseynou Badiane euh, moom moo di nag daal di saytu bu baax a baax anas la koy defee ci Sénégal gi yëpp kàddu yi Mame Mbaye Ndiaye ma ko taataan am na xam ne pour xeex polio bi dañoo commencé woon def li ñuy wax euh, campagne de rattrapage ak vaccin polio bi nga xam ne injectable la ñu ko commencé woon si région de Diourbel donc euh, boobu pare nañ ko juste avant Korité bi suba incha allah la ñu war a def réunion évaluation bi si euh, région médicale de Diourbel ci ñi jàpp nañ ne fukk yi ñi juróom-ñett yi de jot nañ leen ñàkk mais desoon na maintenant la ñu def li ñuy ay rattrapage donc si lañ nekkoon léegi léegi normalement suba bu ñuy def réunion réunion d'évaluation yi si la ñu am résultat yi nga xam ne moom mooy résultat yi définitif dañuy daal di dem ca parcelle Parcelles Assainies foofee nag ñi yëngu ci wàllu tàggat yaram mer nañ ba futtu mer nañ ci lenn lu dul stade municipal boo xam ne tàmbali nañu ko juróom-ñeenti at ci ginnaaw ba nii France daal di dem stade bi noppiwul dafa mel ni sax liggéey ba jamono ñi dañ ci ànd ak ak yeexantu ñu yëngu nag ci tàggat yaram foofee daal di naqar lu ni mel yeex teg liggéeyi ay weer ngi nii ñu teewlu ci ay kàdduk Abdoul Wahab Sène mooy président bu zone 8B bu Parcelles Assainies ci micro Mohamed Diaw lay àddoo 2012 ba léegi stade bi ñu ngi koy defar parewul donc vraiment mu mu jot vraiment ñu livré sun stade ñu ngi sonn trop ñu ngi joué ay Guédiawaye ñu ngi joué ay Pikine ñu ngi foofu ay final ay match championnat yoo xamante ne bu jeexee da ngay gis ay xale yu am ay 10 ans 11 ans di jógee ay Guédiawaye di ñëw du point de vue sécuritaire y a problème donc xale yi c'est pas sûr ñuy jóge ay Guédiawaye di ñëw mais du point de vue financier aussi y a problème donc loolu moo waraloon bi ñu dañoo bëggoon vraiment stade ñu defar ko avant le premier juillet et là ñu ngi interpellé le président de la république le président Macky pour mu ñëw jàppale ñu loolu bu weesoo loolu bu weesoo loolu bu weesoo nous passer à une supérieure di ñaxtuk Abdou Wahab Sène président bu zone B bu Parcelles Assainies waaye tam di ndaw foofee ca Parcelles Assainies fii la ñu ndar keppee jotaay bu njëkk ci xibaar yi ñu soobu ci geneen ponk bi mu julli ci yéen i kaay El Hadji ci ànda bismillah li la laajte day ah, mooy Afrique gi la kañ lay développé jëm kanam moo jar a laaj de termine yéene kaa ne xoolal ma dil bu la ngir làbbali waat na koom-koom ak Afrique yi ca France la doon amee dama ne lay Emmanuel Macron président France daa toroxal humilier tout